asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko bokk yi waxee rek nan daa def def nañ ko mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne sëriñ bi dana na yebal ci jumaa ji ñu yéene fi wax ne nañ séentu weer te lu ci waaye xam nga ñu yëgle ko buñ buñ ko defee ba noppi ne dañuy génn ci bitti nag di séentu weer wi ak di taatan xibaar ci gox yi biñ ko defee nag ba waxtu wii nga xam ne julli nañ gee ba noppi fekk nañu jokkoo kër euh, Cheikh Cheikh Mouhamadoul Mountakha yëgal ko fi mu toll ci uh, mbir moomu xam ne daal mbooleem gox yi daal fone ne nañ téléphone nañ fi ba ci gox yi gën a sore yëpp waaye wax nañ ne ñoom gisuñ ko fii it nuyu bi gisuñ ko bi defee loolu nag uh, ba yëgal ko sëñ bi sëñ bi joxe na ndigal kon ne uh, faral googu rek doy na sëkk ginnaaw julli nañ gee ba teg ci ab diir nag léegi mën ngeen a gëli kon ne weer yu feeñut kon ñu di xam ne weer yu feeñut tey jii lañ ko doon séntu ci dibéer ji waaye feeñut kon altine ji mooy mottali weeru gàmmo wi ñu xam kon ñëpp tala kon ñu xam ne talaata mooy benn rakk rakk rakkaat ji rakki gàmmu ji na ko mooy benn fanu rakki gàmmu na ko ñëpp xam waaw ñu ngi ñaan yàlla eh, eh, may nu xéewal ak jàmm ak sutura tey gërëm waa Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne seen coono lañ ciy def ñoo ngi noonu noo koy ànd mhm. bu ñu ko tàmbalee ba waxtu wii ñu koy ñu ñuy def déclaration bi ak mboolem rajo yi ni fii ci Touba ci ci gox gox bi gox bi ak rajo yi génn Touba ñëpp ñu ci ne dañuy dikk di ak noonu ci ci déclaration yi kon noo ngi leen di gërëm tey sant tey ñaan sëñ bi yàgg fi lool ba li bëgg li mu yéene ci eh, li mu yéene ci yoon wi ak réew mi ak adduna si mu defee ko na mu ko bëggee ba te tan tan tan nekk topp ci gannaawam yàgg fi loolu it jërëjëf sëñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.